tey tax ñu def rencontre bi dañu jëm ci ay élections ñu élire suñu candidat muy le président Macky Sall euh, ne ko tew yow yaay suñu candidat pour nga ñëw yeggale premier mandat bi nga defoon ñukoy sakul benen deuxième mandat ndax liggéeyam ak xam-xamam ak gis-gisam ak vision bi nga xamné def nako ak parcours bi nga xamné président Macky Sall jaar nako ndax depuis ngalandu place parcours bi président Macky Sall def benn candidat musu def du Senghor du Abdou Diouf du Ablaye Wade jógee directeur di yéeg di yéeg ba premier ministre dem fa président assemblée nationale ñu dàq la nga bàyyee lépp ak la nga amoon delloo ko wekkiirlu ci suñu borom bi nga xam ne mooy joxe nguur dem ci askan wi laaj ko ñu jox la ko kon loolu lañ koy gën a jàppale pour président Macky Sall yéene ji mu am ak bëgg-bëgg bi nga xam ne am na ko ci réew mi ñu jox ko ndax nag bu ñu fooyee réew mi ndax am na réew mu mag mu nekk suñ côté gone gu ndaw rek moo jog laaj réew mi ñu jox ko tey gis nga fii réew ma ma toll bu nu fooyee réew mi am na réew mu mag a mag a mag koo xam ne ku bari alal la dem laaj réew mi ñu joxo ko tey réew ma mi ngi ci jafe-jafe ak i coono loolu la ñuy bañal Sénégal yi moo tax ñu ne képp xam ne bëgg nga jàmmi Sénégal bëgg nga jàmmi Afrique na nga jàppale président Macky Sall mu am ñaari mandat ndax yéen pare ngeen depuis 1960 ba léegi benn président bu mosa am benn mandat amul loolu kon nañ ko jàppale taxawu ko yéene mu yeggale ko li nga xam ne xalaatal na ko pour askan wi loolu mën sotti. ngir euh, incha allah suuba rek la ñuy commencé comme ni ko Abdou Aziz waxee expliquer askan yi dem ci ñoom li nga xam ne moom la président wax ci discours am euh, ñu jël ko càmbar ko def ko ay traduire ko wolof arab dem ci askan wi wax ak ñoom wax leen fan la ñu war a teg seen tànk incha allah.